jaw imo moy agence immobilière bi innové immobilier au Sénégal jaw imo dañu lay jaay terrain defaral la terrassement Bo amul terrain te bëgg kër gu soti bo ñëwé agence jaw imo dañu la koy jaay jaw imo fi gëna place ci Sénégal bo fa bëggé terrain ak quartier bo mëna bëgg kër ci Sénégal bo lëkkaloowee ak jaw imo ñu wutal lako. ko dañuy jaay ay terrain waye dañuy jaay ay kër yu pare <laughs> Fi mooy jaw imo Lo mësul gis ci immobilier lo mësul yaakaar ci immobilier bo duggé bir jaw imo bu ñu la wone li ñu tabax ci ay kër nga xam ni immobilier woo immobilier jaw immo moo mën ay kër yu yànj ay kër yu rafet lool ay terrain ak loo bëgg ci mètre carré wala ay hectare boo duggee jaw imu da nga ko fay am suñu ay bureau mu ngi nekk Liberté 6 extension loo numéro 286 Dakar Sénégal wala nga woo ñu ci numéro 77 569 75 75 wala numéro fixe bi 33 822 20 91 xeetu kër yu sotti yoo xam ni boo fa duggee da ngay taf sa loxo sa gémmiñ naan woo pop pop pop ak jaw imoo bu noppee sa kër da ngay nelaw ba yandoor waaye bu mu tax nga biddanti. imaam gàcc gi nga ma teg yaa ma rus kon yow da ngaa gëm waxi soxna Marème ji nga xam ne ay kàcc ki sos dong la ak i fen moo tax bu duma ko gëm baru ko gëm la ko gëm kay ndax yow sa takku jarbar bobu isma kérok bo ño andol dem fa waaw wa ya, lim wax ci sa jarbar bobu yow war nga jël ñaaw lol di tek ci soxnaam han rax ci dool seen mbindaan man andana man ak yow ya, dem bu uhuh, seen dekk waye ba fay dem waxo ni ma woon dafa ëmb eh, sa doom jeune man duma seen morom gi ngeen këll këlle da ngeen may mën a jox cër ndax may seen imam respecté leen ma foofu nag laa yem waaye yow merde waay yow daal waxi buur géwél rek ngay wax te gis nga ko wax enregistré naa xaar pour lan damay woote koy woo sama jarbaat bi laay woo Saliou pour lan a ah, du ko jox pour mu def ko ci internet bi tasaare ko tasaare ko pour lan daf koy tasaare ci internet bi léegi bul def loolu nanu waxtaan ba juboo réeroo amul ñàkk waxtaan doo am léegi moom dama laa bëgg xamul bëri mooy imaam bi cëru imaam bi waaw ah dinaa la ko bàyyee waaye lépp loo xam ne nii moo war ci imaam bi moom ci sama coobare bopp lay nekk ku koy defa yow de yaa xam fu nekk yaa may indi fu ne. Euh, gis nga jàng jamono ji ñu toll nii damaa jël décision bu bees tàq changé dund bëggatuma benn stress ci sama bopp daal di génn di xàppi di noo xanaa dee nga nag mooy dëgg de waaye noo ma jeeg maam Thion keroog daal dem naa fa yoo fa demee am na benn garab bu mu ma jox mais nee na bis ma ko utilisé taala dina ñëwaat. te bu ñu waatee doo ko xool beneen jigéen ci aar làmb bu dul man ah, ah pare naa ko def ko de yow attends yow doo ma wax ni yow da nga bëgg nekkat ak taala de mais yow taala da nga ah, mën a dundaateeg moom gis nga nit ku baax dangay ngay tey gis nga taala man jëluma décision sax nekkaat ak moom gis nga traité boobu li ma def foog ma faju ko ah parce que dafa maa dund loolu métti góor ñi gat sa gat ngay dund ak ñoom te yow xam nga ma man. fi mu nii kafuma réewuma. kafootoo de. Hmm, teeloog taala maa la. da ko waxati de. dafa nag de déggale li ma day dóor aare léegi yow xam nga amoo jom bëgg nga fu ñu nekk balaa ñu faa jógee foofu nga xeex ça va vous allez bien bien dạ, alhamdulilah bonsoir kilo ñàkk kees sa yow doo fay kii di la nuyu raawul raawul depuis sànq damaa doon taw bi di bàyyi xel mais may danaa ñëw pour nu waxtaan xamante rek dem ba rangé wu lépp. non garaawul ñun ñaari célibataire yu jigéen lañ de ñu góor bu ñetteel tamit garaawul. yow nga yow tëjee sa gémmiñ gi doo toog. non non jarul toog bàyyi ma tagaw damaa yëg laa tudd. baba la de. homme d'affaires. dégg oh, nga. ok si sama mm? mm. rek. Merci, hmm? d'accord. Oke. dina kontaan. Ok, ciao. Bye. Ciao. waa jàng yow yaa am fit comme d'affaire léegi ma ciy dugg fitnal game bi laay ya, defar ay man daala yàq na sama xolu xarit bi ah daa sama xol bi daggate ko damay duggaat essayé xool ba xam na muy joxe ki daa am ko yor de homme d'affaire la laal daa Iya, ya, ya, iya, area. Eh, dama xam seen jikko xam waa kër yan ma biram ko du job niñ leen yaree teraanga rek ngeen xam motax man ma ni su ya, ma da ngeen anu koy préparer da ñew rek. xam nga yow yalla def na ben affaire mu yow sa bopp ci kër gi nga mësa dëkk. te daanaka mun naa ne yaay taw ana soxna si. moom dafa demoon Dakar amoon ay meubles yu ma jëndoon fan yële ci ginnaaw mu dem récupérer ji ko. ah yéen ma yaakaar ni yu baax yëpp fee lay jógee dëkk ba Turki. waaw man daal ginnaaw bi ma defee at yu bëri ci àll bi jaar ci consulat du Sénégal à l'étranger yu bari damaa jël décision wu daal ñibbisi ci réew mi ndax xam naa ni ci noonu rek laa mën a jëriñee réew mi. ah sama baay yat mu Jóob de daan naan barkey tukki mooy ñibbisi. Mhm. d'ailleurs sax man kër gi may tabax bees maa ngi ko tabax sama wet nii. déedéet soriwul daara ñi kay mën naa ne moom ay dëkkandoo lañu. ah di de xéwal la mun di jaar di xoolaale njaboot gi. dina ci baax kay. ah yaa na si yàlla def waaleykum warahmatullah wa rahmatullah yegg si la jàmm ci kër Baye Thion tur bi naka la. Moussa la. Hmm. lu doon say tànk. man kat sëñ bi damaa dégg say jaloore hmm. dégg nit ñi di wax ci yow. Hmm. moo tax ma ñëw fi tey pour nga dimbali ma. jërëjëf jaloore yi day. Eh, lu mënta ñàkk la ndax nit moom saa yu ko defalee lu baax ba mu gis ci boppam war na mu tasaare ko ba ku ne mën caa jël loolu képp la waaye nag yàlla bu yàlla tas yaakaar. amiin amiin hmm, hmm. gis nga li may nekk ci àll bi yëpp nag à chaque fois que mon téléphone sonne ma gis sa tur jëmmi yan ma biram ko du jëm rek mooy taxaw sama kanam. umpale wo sama digënté ak mom mbax gi ma défal teranga gi ma wan nimbal gi ma dimbali mak sama soxna parfois même je me demande est-ce que réellement sénégalais yi xam nañ kan mo binum ko du job ak dimension spirituelle bi ko suñu borom mayon nit ku ne de juróom yi mo nek ci mom muy mbotam ruham jëmmam xolam ak bakanam te buy dee lépp lay yóbbaale wante yat ma biram ko du jóob ay mbóotam mi ngi fi ba léegi da mhm. mhm. nga yëkkati kurus gi wàññi juróom-ñaari per ci wàllu wu la neex rek boor bu la neex mën nga ko faa wàññee Non, ça sa soxla du ma jox dégg naa la mm-hmm. ma ne dégg naa la bu baax mm-hmm. <laughs> dégg naa la de <laughs> nañu mbooloo mu doy waar bu nekk ci sa gannaaw lu mel ni dañ laa ëttal bu li nga wax dëgg la de ma daf sa xel dalul ngay xalaat lu bari mm. lu cëpp na nga koy gént waaye boo yeewu suba da nga koy fàtte. dëgg la sëñ mm-hmm. moo feeñ dañ laa ërtal de. ah li nga wax ne de dëgg bu wér péngal mm-hmm. man kat liggéey bu mooy liggéey dafa bëri risque. moo looloo taxoon daal ma ñëw pour nga jàppale ma rek nga dimbali. Mm-hmm. baax na ndax li ñu gis dafa diis loolu talu doy waar ci yow la waaye nag lépp ci jàmm lay mucc te loo gisit dafa am yoon. foog nga may ñu lu tollu ci ñetti fan ñu fanaanoo ko def listixaar ginnaaw tey da hmm. nga wàññi ñetti fan yokkaat yi beneen fan muy ñeent loo jàppoon nga bàyyi ko te ñëw jaral na ma ko bu ko defee boo ñëwee ñu jëflante yow ci liggéey jaral na ma ko hmm. loolu kay jaral na ma ko suñ man daal nga dimbali ma rek moom fi andi na sa xel dal xam nañu lépp ku bëri wërsëg nga hmm. waaye sa wërsëg li muy takk day bari loolu dëgg la te lu bari da ko yaakaar ci nit waaye yaakaar boobu day tas. dëgg la sëñ bi. te say noon ku ci ëpp mun xam nañu lépp bul wax bul wax na sa xel daal. ñun daal man daal maa ngi moom. dox mhm. naa la sama lépp. Mhm. danañ ci jàpp bu soobee yàlla. yàlla ñaala boole dimbale. waaye weexal bi ñaata la. comme yaa ngi doog a ñëw ci ñun euh, xoolal li sa poos attan rek nga def ku ñu dimbali la ba noppi. Hmm. ndax ku jar a dimbali nga. maa nga jàpp ci lii rek. Mm-hmm. baax na ma ni. Mm. na wut lu weex lu demee ni ki soow wala meew nga sarax koy xale. incha am na looy xaar mu takk lool waaye boo ko saraxee rek ñu ngi ci jot ci soob yàlla. incha allah dalal sam xel. seen mbir bu mu siiw. si. Eh, suñu borom buri kemtaan Moustapha waaw ah, yow waaw ma ne kii kii génn di dem nii mënu ko ne woon sama yaay xaar sama yaay ñëw Sadio Mané mii ban Sadio Mané Moustapha da ngay ree. yaay xàmmee woo kii. kii la. mu naan Sadio Mané kii Boubacar. Boubacar. yaay da ngaa fàtte Boubacar sama wóolare baay boobu. waaw Boubacar. Boubacar ma ne tur woowu am na lu may wax. Boubacar mag dikk na nag. Eh? Boubacar. yaay eh, boo da ngeen def. Eh? sant yàlla. sant yàlla bu baax. alhamdulilah naka njaboot gi. sant yàlla soxna sa nu mu def Boubacar. ñu ngi ci jàmm ana ana ana ana góor gi moom. góor gi moom dafa dem Nigéria. Euh, buuru kano bi moo ko woolu dem na ci ay allah sama góor gi. ndeysaan ndeysaan. Cheikh Ibrahima de sama sëriñ. bañ ko laajee ne ko lu tax du toog Sénégal. comme ñëpp daf ñu leen kër gi pour noppalu la. ba bilaay seexal lislaam loolu la góor gi yar ma tey wane. macha allah. seexal lislaam radiyallahu taala. ñoo xamul rek. ndeysaan. ah ana soxna Aïchatou moom. waaw mu ngi si rek. waaw soxna mi fi. fan dafa jaga di daal. ndax guddi gi bu day rek. eh waay masawaay fu toll day tiit rek du nelaw fajar. loolu sax moo yokk tax ma ñu naa fi ak si tey seet si ndax ba allah sama yaram macha allah lépp lu ma mas a gis ci. taw féex moo tax ma ne naa fi agsi ko defee ma mën a am ci moom ki yooyu jëm ci soxla si waaye nag nii moom am na kéemaane daal ah, góor gi de man li ma jaaxal rek mooy li ko fi fekkul loolu da jaaxal na te xam nga nag yaram bi tawat moom ah, hmm. moom sama wóolale bàyyi nañ fa ne am na lu mu sama bàyyi denc xam naa garab yi te xàmmee naa dem hmm. xanaa kay dañuy jóg rek wutal ko ci Chon ko su demee lu jox loolu de soo ko defee dina nekk lu sa baay dina si kontaan loolu bu ñëwee boo ko ko waxee. ndax gis nga Boubacar mii mm-hmm. ah sa baay da koo bëgg. Mm-hmm, kóllëre goo xam ne gu yàgg yàgg la. ni mu nekkee nii tout tànk lool ah terewul ah xale la waaye xale bu am kilifteef la fonk sa baay te jàpp kër gi lool nag mm-hmm. saa yoo gisee dox na tànk rek tànk jaam lay dox ci kër gi te lu ko jaaxalit sa baay doo nga ko ci doy keneen doy ko ci. kon nak loolu boko defé dinañ ci kontaan yalla yalla safara nak saafara yalla safara na yàlla yalla safara bu baax bu bakkar sha allah wax nga deug oh way way way wax nga deug way sa baye ke bëggoon bu bakkar te fonku ko ñaari baat yi mu waxaan ne bu bakkar moom ana fu mu nekk sax léegi bu bakkar hein ah. mu fi daan ñëw ah. temps yooyu ndeysaan nekkoon ci ay tolof tolof ah, waaye dimbali ko joxoon koy affaire mm-hmm. ba fi mu toll nii nga nekk ci turki mm. nekk fa si ambassade bi am fa doole macha allah mm. ba ci soxnaam ci bopp mm. commerçant bu mag waaye moom nag ba tey ba sa baay dee ba tey ñëw ci kër gi mi ngi doog a ñëw ci kër gi yaa ah. ngi fàttaliku sama dëju baay waaw ñaareelu nag waaw moom mii moo yëkkati alalam yónnee ma ko def ko ci. ci depuis Turquie. yàlla xam na yow wax nga dëgg wax nga dëgg wax xam nga ne man gis nga gën a nag dëj ba daal fi ñëwal ku ñëwul xaw ma ko ndax damaa jaxasoo woon. kii nga woon ah boobu boobu perdal naa. ay boobu perdal naa ah. Mm-hmm. ah. Eh, Boubacar. Cheikh ah, Boubacar leen rek laa bëgg yaay. Mm. nga ñaanalal ma ko. dëgg la nit ku baax. dëgg la ñaanalal ma ko bu baax. dëgg la yàlla defal ko jàmm ak soxnaam. Mm-hmm. Aïcha moom ku baax. mais man de damaa defe ne woon ne àddina bi nit boo ci xënteeg nit kóllëre ba mu génn àddina danga koy fàtte ah. ndekete yoo ñi baax daan baax ba tey ñu ngi baax ndekete bu bakkan nii kat ku am kóllëre la ah, ci gën a neex ah bii la fii nii nii la sa bàyyi la bëgg sa bàyyi la bëgg ah xanaa ci jaw imo ci jaw imo ñoo ñu naan jaw imo xaw ma ca la tabax moo ko jaay kii bi moo ndeysaan ndeysaan ndeysaan di ah, waxati de yeneen kóllëre daal ginnaw lay fété waye dama né ko kóllëre hmm. kanam lay fété ndax boko ci ginnaw moy wacc nga ko waye boko jëlé ci kanam ah da ngay and ak mom rek dem and ak mom jakkar lu moom. ñu ko kóllëre ginnaw lay fété wa xam wala ñay daal nag saa boobu ci Omar rek bàyyi commande jàmbur entrez. salaamaaleykum. waaw yaa ngi lekk. kumba déggoo fëgg bi sax. ci loo nekk. maa ngi nii rek. ça va ci jàmm. ça va bien. naka sa yaay. sama yaay mu ngi foofu rek. ñu ci jàmm ñu ci jàmm. tey rek maa yendu si. yendu si woon dama fàq. ah, ah mag foofu la nekk bëgg maa fóotloo ma fàq ñëw toog fii ay fóot moom mënuma ko sax diggaale ma ko. man de xale tey xaw ma lu tax ngeen bon te tàyyel waaye yow sa yaay bu la waxee fóotal ma danga danga ko mënul fóotal. mais lan moo tax may fóot dañu am jàkk bu nekk si kër gi xam ne dañ koy fay pour loolu. ñeen daal jàpp ngeen ni jànk moom bu nekkee ci kër lépp moo ko war a def ah ah waa baax na daf maa déggalu nag gis nga su ma déggalu jànk ba day dem bu yàgg ndax man duma yor doomu magum jëmm ci kër. di jël doomu jambu diko ko liggéeyloo. ah kon yow sa mag ndal yow yaa koy influencer yow motax mo xey takku ba deugar neena ma na foot mais man dem na déggul influence bi gis nga bu ko déggoon kon kenn waxatu ko. Diagne. dépense bi damay wëkkee. Euh, Nogay. xanaa balaa nga maam coow sama kanam naa ma nijaay jox ma dépasse bi nga nuyu ma. ka nga fanaanal dem na loolu nga may tontu. mooy li am. Nogay changé nga de Nogay te nu may seetlu seen mbir mi ngi bugg a bari Nogay bu ma daa ñëw balaa ma laa ñaan ndox yaa may njëkk a may ma naan reer bi daaw ko laaj añ bi daaw ma la ko laaj. asalaamaaleykum. kooku yàlla ji de. nee naa la yow bu ma nee sama nopp ma dégg la ci biir dëgg bi te ñëw ma fii baadoola laa jaam laa du nekk cub sëriñ baa ngi nii barke rasulullah nee la xale yi moroom yaa man ci bii boor man ca boor eh sëriñ baa ngi ni yow waxoo ko maa ngi wër di ko wax parce que da ngaa ay dëkk damaa jóge ko sa dëkkaace mu xamal ma ma ñew nga kon dalal ak yau ndax yow ku la yëg cib koñ dalaa wara dalal non dama lay dalal di wax nak sa jëkër ji ndalal la ndax ki kurusam gi toj na ci Mali eh ki wa Bamako ñoo ko xam neena la ki Gambien ñoko gëna xam ana ñom ñoo la bëgg yow ku am aajo rek fañ ñoko eh borom ñaari gine yaangi ni de. toor fa kala macha allah toj nga ko rajax ma dolli la ci ah Congo Brazzaville dégg nga loolu xaw ma ko woon te mosuma xam ni Congo Brazzaville kii yéen koy toj ah gis nga gars yi ah. dëkk yi lim yooyu yëpp mhm. maa ko lëmbe ndeysaan ndeysaan fa jommi woo gede laa laa la laa boo bëggee dégg dëgg ah. bandi baa ngi ah bandi baa la tooroo la <laughs> naka la yeug ni yaa ci deug bi man duma tok cum yeen ci café café dégg li café café café café wani iya. ya jaay yow bala ngay joxe njëgu café do joxe dépense sa kër xam nga lan bëgg nga tey ta and ak dal dégg nga lu ma wax gis nga sa tonton coor bi mu fi bëggee jël jank dama ne ko du ci dal Fanta moy togg moy balé moy def lepp waa léegi Fanta nek fi yow léegi yow nan ngay def Fanta du yàgg lii yëpp dëgër boppam ak dëgër bopp papaam ak papaam topp ay caprice moo tax lii yëpp am mais commandant su ma bàyyi woon ak sama doom Fanta su ma ko xoolee rek mu xam li ma ko wax. léegi tere ko fii bu demee fële di ko fa yow ndax nañ ko mën a surveiller. bu doon yow mu wow bët mi de ma xam ne sañ nga ko waaye Fanta fee ma ko teg xalaatu faa indi góor rawatina Moustapha. comme dangaa fàq jugal dem ci waañ bi togg la ma ko teg man yow ma fi pour togg de eh man danga dimbali ma ci xorom bi nag waaw gis naa ko model bii la merci beaucoup. Euh, gis nga baañ. muy borom darajaak mm-hmm. ak kilifa bu munti doon mm-hmm. say xarit ba mm-hmm. say am ni jàmm koo si dégg mee waxi waxi jafe-jafe indil ma ko fii ma ñaanal ko loolu na sa xol sedd maanaam marketing bi ma seere ko daal te it uh-huh. boo fi indi uh-huh. am nga dix pour cent eh, waay doow naa contrat bi <laughs> la wax ni daalal sa xel fépp fu nekk ci adduna bi dinaa la ko sama jinne yi nag mm. am na si jongoma bu rafet. Hmm. dinaa jëm waxtaan ak moom may la ko soxna. ah déet déet déet sëñ bi ma jënd li. Hmm. Eh, bu mu dugg ci biir baal ma bàyyi ko yéen rek baal ma topp sa ginnaaw nga dama ñaanal rek ñaanal ma rek ma daw gaaw. aw ko attanu ah, ah alhamdulilah kontaan naa nag bëgg lool. loolu jàppale leen sëñ bi jàppale leen sëñ bi. bu tay nak yalla da dogal seen Modou Gaynde daf maa woo biig nee ma tey dem ay gat fa laay yalla jub solo yalla legi sa dépense ko nak nga xol nak def. c'est-à-dire. waaw man euh, gis nga man maa la tax sa borom keur la bo beugé am si man lu la war da ngay def lu la war. Hmm. ni nga mel melu mako won ak yow. kéro ba ma seetlu naa ba ma la takkalee wujj nga indi sa jikko ji. wax nga ko legi waaw kon jeex na. waaye nag damaa nga xamni man. ñeent galon laa war a am te fu mu toll ñetti képp laa yor kon dese na ma benn. yaa ko teree neex sëñ bi. ah, ah sa dépense nag kon mu yow réewande ngay jaay xoolal noo utee sa dépense. wuy ma hmm. ak fu ma ko mën a amee n'est-ce pas dina la neex. waaw ndokk ndokk. maa ngi ñëw joxal dépense. xam nga yow dama bëgg jatu lu fëgg sa tànk yi ba mu set jàll sama lal bi tëdd noppal sa yaram tey moom marché du la gis fenn eh dama ne nga waaj ñëw dem marché laa wax tey moom yaay doog. kàmm nga kàmm rek nag. tey man dem marché yaay tey dama leen ceebu jaga bu amul fenn. du lii laay waxati yow kii yow yaa ko yàq. yaay. xanaa gisoo bintu ni mu toogee. xoolul loolu fi mu toll am na lu mu la bëgg a wax de. Hmm. lu mu bëgg a wax. waaw nouvelle laa la indil tey. waaw. lii deviner. ñu ne ma. deviner. enveloppe de sa xarit. xam nga yow nga xaalis xaalis laa laal fi mu toll nii. xaalis. waaw. yow bi dafa jëlee xaalis ci enveloppe bi. sama copain moo may un million pour ma changer sama garde